ne ginnaaw nattu am coono am problème am xiif am xiif bu metti boo xam ne danañ ci lu mat ñetti weer tindu kàkk ci kër Serigne Touba bi wax nañ ne nga xamee ne boo jógee diwaan it bu leex ci leen ma rek borom daaru daal di yor njabootu sëriñ bi ci li ko bi digale bi ko ko digalee xiif am bu metti xiif boo xam ne danañ am weer ci lu tàkk ci kër am na ku ñëw dee jeerno ne ko sa mbokk mi ñuy wax bi mu Mbàkke dëkk buy nguraa am na sàkku ñett daf koy jéegal jéegal mooy koo xam ne sàkk mi soxla wu ko ren bëriwé mu ne naa ca yónnee ay jël di ca lu ay sëñ ma Mbàkke wax ndaw la ne ko nee leen ceeru sàtt naa ngi fi waaye mayewut leblewut sarxewut jaay su amee jaay ko su na ma fi bàyyi saam sàtt nee na tas daara jooju te leen mujj fu ndax sëñ Tuubaa mi ñëw du dellu ndax ana diw ana diw ana diw ana diw ana diw ba mu mu ne ko moom it du dellu si xamu leen sayaboo nag moom daara jooju muy jéem a wattu di xaar Serigne Touba mu tas ko wuti fu mu làqul ak yu des biñ ko waxee teeru mu daal di wax ah li mu a wax day mbirum boppam la ndax am sàqam nee na mayut sarewut sarxewut leblewut day jaar yàlla am na ñëpp waaye li mu mujjee wax nag yoonam nekk bañ tegee ay fan la nit ñëw andi ñett dërëmi sa Serigne bi dem jënd sàq ba mu jëndee sàq ma dem di ca a boy daan la yàlla daf may nattu ba xam rek sama pas-pas fu mu toll waaye njabootu Serigne Touba gii yàlla du leen rey ci kii daal di wax nañ ma ñàkkal sàq ma ñu daal di ñàkk sàq ma ba cooroon mu ne nañ ko boy ñu boy ci sàq ma mu ne nañ ko faraas seet teet teet teet sàq mi yëpp dañ koo faraas borom di waa neen xam nga ne am sàq kenn mënu koo bay waaye dafa barkeel ba mbooy gi kenn mënut a bay ay sàq fukk ñoom bi ni Serigne Touba jël géej gi kiif amatul ci njabootu Serigne mu des nag leneen tawat dëkk ci biir kër Serigne Touba tawat bi metti yoo ku faatu fa la lay teg jéem la faa jullee jéem la faa du kenn du la galaat njabootu Serigne Touba boppam gi am ci bokk muy Serigne Bara Serigne Bara génn àdduna ñu ni ko nëbbu Cheikh Ibrahima Faati Mbàkke waaye mënuñu koo ñàkk wax ndax kër gi ndegam moo fi nekk te njaboot sëriñ ci ay loxoom la nekk faw mu yëg am ku ñëw ci moom di ko defal naan ko xam nañ ni nga bëgg sëriñ Tuubaa xam nañ sa digg ak sëriñ bi njaboot ci toll xam nañ ko xam nañ ni nga gëme nattu yàlla mu ne lu doon ñu ne ko sëñ la mu ne mat la ni saa moom ñu ne waaw lu bëri wax na ni dur ki dara yim solo bi mu daal ci sëñ Baara naxal fenn yëpp dafa lu a romb teg na bi mu egsee ba ci sëñ Baara xam nga nu mu defar mët la mel mët la mel jógal jógal laa wax sëñ Tuubaa duma dara dégg dara ñu ma di ko laa xam jógal mu ne ñàppee ko mu maa ngi lay ñaan boo naree jël njabootu Serigne Touba gi kenn kenn jëlal Modou Awa Balla sama taw wala Modou Habib wala soxna Fatou Issa Diop sama yaay wala man ba ni Serigne dellu si ci biir xam nga lu mu ci wilaaya ci pas-pas laa ko mu dem ba tëj géej julli jot muy bëgg a julli tubaab yi aaye ko gaal mu maslaa ñu aayewaat nee na ma maslaa ñu aayewaat nee bàyyi ko saab jar di ko sànni ci géej gi di ko fekki defuma ko ci ndigalu yàlla yàlla xamul ma ne soo ko defee mucc waaye saa pas-pasu bopp bi naa ko def lu fekk baax na ci ma yàlla mu kon yéen taalibe yi lii ma wax nii man naa ko ci ko am pas-pas nag waaye am pas man saa pas-pasu bopp man garanti naa ma leen di wax ne leen seen sëriñ bu baax bii nekk sama nekk sama xarit billaahi wallaahi ta su ma mën a dox sama su ma mënoon a foog sama barke bi jox ko bañ a dese dara dinaa ko def yéene naa ko li ma yéene sama bopp wala lu ko laaj ngir laal boppam li mel rek borom daara dafa wax ne Mouhamadou Awa Balla mu ko Mbàkke mu ne ko ak cëriñ njërul yuur sa bopp mu ne ko loolu mooy ko xanaa sëbi di nga rek Modou Awa Balla mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñee ak sotti baaraam ba kutti cëriñ mu ne aw Balla mu ne ko Mbàkke mu ne ko doole kese fayut bor dégg nga loolu mu ne ko loolu loo ci jublu mu ne lu la bàyyi defal ci lu baax boo ko gis loolu defe na fay ko nee na déedéet ku la bëgg bëgg ko ba nag soo ko jox la ku la yëg la soo bañ lan ne ku la bëgg bëgg ko ba noppi soo koo joxu la ku la yëg yëg ko soo koo joxu la ku la teral fay ko teraale soo koo joxu la waaye lu la war a defal ci lu baax bokk tif la lool defee ne fay nga ko nee na déedéet lu ak sëriñ ak yaa kon fi nga nu teg ak li nga nu lebal rek lan lay fay kenn lebalu la kenn kenn fa kenn kenn lebalu la dañ lay fay sa rek fekk ma lay ñaanal rek ci barke ñi ma ànd sama rak ñoo di ko wax Sëriñ Modou Gueye Jinne ak Sëriñ Abdou sama doom ñu ngi nii toog ak sama jabar képp su fekkoon tey su ma leen mayee kenn du dem dañuy toog te li may wax dama ko tibbee ci sama. wér na wér na ku ma xam-xam ne mu Modou Kara Sylla la Serigne Mbacke Cheikh Mbacke sëñ Mbacke sëñ sëñ Gaynde Fatma waxoon man ca laa ne. Gaynde Fatma defal na ngeen xam seen bopp te doon ay gor soog a nekk ay julli. mu daal tey teg la na ngeen yàlla ñu naan nu koy sante mu ne xanaa li yàlla defal li nga defal lii amoo loo ko fay. mbubb mi ngay sol ñëpp yi gis bu ko kenn yabe fi nga wax nit ñi dégg bu ko kenn yabe fi nga jëf nit ñi gis bu ko kenn yabe fi nga bokk boo defee nii boo noppee yaa ngi sant boo waxee yaa ngi sant te sëriñ bi ci loolu yaa say am nga lu jafe am say rek ñu nangul la topp la yóbbu mas laa waaye nekk benn bëreeku kon nag li la defal yàlla na sax ci barke Serigne Touba Xaadimu waaye nag leb lebo fay bor la. Serigne bi nee na koo muy def day leb leb la day fay. bu dee day leb la jar na ko ngeen fayul. Hmm. bu dee fay hmm. li ngeen di lebal seen mag yi yàlla leen ko yàlla fay ati doom ak doom yi ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul wasalaamu